Euh, bonjour chers téléspectateurs de la 7TV et bienvenue dans votre émission Góorgóorlu comme ni ngeen koy amee chaque mercredi à 14h non maintenant heure bi dafa changé avant c'était 14 mais maintenant c'est à 13h30 tàmbalaago la <laughs> donc mi ngi noonu alors tey nag ñoo ngi fi nga xam ne muy Fass donc boo leen déggee Fass ngeen xam ne ay jàmbaar ay ay liggéeykat ay daankatu doole ay góorgóorlukat ñoo fi nekk mais ñi nga xam ne ñoo ma indi biir Fass ñoom Médina la ñu nekk donc ñu daal di seet si benn culture bi nga xam ne euh, culture bu yaatu la culture bi nga xam ne ñëpp ko bëgg du lenn lu du asiko asiko boo leen ko déggee rek mooy ñuy yëngal gësam mu daal di neex euh, donc asiko famille yi ñoom la ñu daal di seet si donc boo leen déggee asiko nag euh, ñoom dañu daal di nekkoon ñoo xam ne dañuy accompagner les lions dañuy accompagner également ñi nga xam ne mooy mbër yi dañuy accompagner également ne dañuy football nawetaan ah, yëngal stade bi mu daal di neex Sénégal bu waree tukki sax ñoom la ñuy daal di yóbbu léegi nag asiko dafa gën a yaatu ci wàllu mariage ci wàllum fosco yi ba tax na nee nañ dañu gën a yaatal seen culture ba mu boo déggee mbalax dégg asiko ah, te man sax ñoom rek laay topp asiko dafa neex ah, donc dinañ gis li ngeen xam ne mooy tama yeneen yi ñuy yëngal plein de choses si biir seen instrument musical donc tey ma ànd sama doom sama xarit Papa tey moo accompagner fii xam paas damay daal di daagu ndànk dox ndànk gis nga leen équipe la nee naa leen équipe bay ñëw wàcc mu neex damay daagu ndànk dox ndànk bu ko defee ñu daal di waxtaan ci émission bi léegi léegi rek euh, dans Goor Goorlu téléspectateurs de la 7TV kon ni ma ko waxee ca njëlbeen bi nee leen tey seeti naa ay ndaanaan ay jàmbaar mais aussi ay liggéeykat parce que métier bu nekk dañ koy daal di laal ba tax na tey dama daal di laal xale yi Médina ñu daal di ma indi fii Fass donc ñu daal di war a fësal seeni liggéey mu nekk waa Asiko mu nekk Asiko famille yi Asiko nag ñu bari nag ambiance bi rek lañ ci xam. te dafa am ay secret yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ma daal di taxawat benn jumeau bi beneen bi moo ngi fële damay nuyu euh, euh, Kéba d'abord bàyyi ko mu présenté wu ma daal di ñëw ci yow nee na blanc la tudd ma ne ko xanaa keneen ki mooy noir <laughs> Kéba nuyu naa la. ma lay fay maa yaa ngi ci jàmm sant yàlla bu baax alhamdulilah. alors Kéba dañu lay bàyyi nga présenté wu nuyu téléspectateurs yi ñu daal di dem si ñëwaat si yow. waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi ñëpp di wax ma la Kéba ñu gën ma xam waaw si Boy Médina bi mm. waaw yaa ma gën a xam Kéba wa ngi noonu ñu gën ko xam gën ko ràññee ci Boy Médina bi nee naa leen asiko yi ñu koy tëgg ñëpp a stylé ñoom ñëpp a fashion ñoom ñëpp mën a sañse donc ñu daal di ñëw ci blanc blanc ba pare nga sol blanc lu tax ñu lay woowee blanc blanc bi danga nga ko bëgg walla la. non maintenant moo demee noonu rek Souleymane Mbengue laa tudd mais maintenant noo def ñu wutal la surnom. loolu moom sa jumeau moo tudd kan. Doudou Doudou moo tudd loolu mënoon na Doudou noir <laughs> wala yow yaa xees moom mu ñuul. non. <laughs> ñu bàyyi la nga nuyoo nuyu téléspectateur yi nga xam ne ñoo leen di seetaan. waaw ah, maa ngi nuyu nag ku nekk ci turam sant ma la balaa Sigo ñu gën ma xamee ci Asikoora. Mhm. Ah. Blanc dinañ ñëwaat ci yow donc avant nag xam nga métier bu nekk da ngeen di daal di xam li ngeen xam ne mooy histoire bi at euh, yi nga xam ne ñoo ci nekk donc avant ñuy ñëw ci instrument yi dañuy daal di ñëw ci euh, euh, Doudou waaw ah. Doudou dañu bëggoon xam depuis quand yaa ngi ci milieu Asikoman. mu ci duggee léegi li mu mat cinq ans. Mhm. ku ma waxoon sax dinaa dugg sax si kawar moo ko gëm ndax taluñu ko woon sax. waaw taloon football bi xam waaw bal bi rek moom lañ doon topp. <laughs> yàlla fa def ñu jég saa rek dañu ubboon benn dañu benn groupe am te ne rankang lañ ko doon woowee quoi ñu doon topp benn politicien bu tudd Seydou Gueye sunu papa la ñu dëgg maintenant ñu koy nuyu waale ñu koy topp affaire yooyu noonu ba ñu commencé dund affaire yooyu nawetaan ubbi ñu tuddee suñu bopp déranger. déranger asigoo buy daw côté bi ñu ñu daw côté bee di yëngal foofu dem ba suñu xol dugg si asigoo bi rek ñu ne la moo tax waruñu mën a ubbi sunu groupe di jàng tëgg ba yàlla def li gën loolu moo indi lii yëpp. donc depuis cinq ans yéen a ngi tëgg te tëggantu ngeen commencé woon. commencé di tëgg. ba <laughs> foo ngeen ko jàppee. te dégg naa ñoo gën a mën a yëngal Sénégal ñëpp moom la ñuy topp man de yéen laay topp yéen kese. <laughs> donc ñu daal di gisoon ne waa ASICO dañ leen xamoon ci euh, match bu amee ñu invité leen donc voilà ñu yëngal tëgg léegi ASICO dafa dafa dafa gën a yaatu est-ce que mën nga ñu expliquer un peu lan lan lan lan lan ngeen di rek. waaw ñun moom ñun moom bu ma la nee ñun dëj kese lañ dul tëgg ñun loo ñu woo si àdduna dañ koy tëgg si àdduna. lépp lañ tëgg. papa yow barki de moo nekkoon sa anniversaire. moom na bëgg rek ñëw yëngalewu ko fépp bàyyi ñu benn zone nag zone yëpp la ñuy dem di tëgg képp ku ñu woo si àdduna dañuy ñëw tëggal la waaw. alors ñu gisoon ne Asiko euh, euh, xamee wuñ ko woon ci li nga xam ne mooy ay. Euh, mariage xamee wuñ ko ci ko te instant bi dafa nekk seen période li xale yi élèves yi ñoo ñëw vers yéen wala yéen yéen a bëgg seen métier gën a yaatu ba tax da ngeen dem vers yeneen euh, métiers yi. non non ñun kenn ñu moom liggéey lañ xam liggéey répétition toog xaar élèves yi daal ñoom ñoo gisal seen bopp xam ne booyoo ñoo leen doy ñëw ne Sigo Family lañ bëgg ñu tëggal suñu fës ko waaw te ñun tamit nekkuñ la ñu ñëw di telli telli nii di tëgg di dem dañuy boo ñu fayee woo ñu fay ñu lay tëggaloo am te day seddal sa ba beneen yoon nga mun ñu woo. ndax nit ki mënul liggéey xaalisam woola nga koy tëggal loo xamante ne da ngay dem mu naan ah ñii moom defuñu fi dara waaw te asiko asiko man dañoo war a yor beneen niveau boo xamante ne fu ñu dem tëgg ëllëg dinañ leen woowaat ne leen ñoo leen wala ñeneen xool loolu woo leen si loolu la ñuy doxee. c'est un métier comme tous les autres métiers ba tax na yéen da ngeen concentré wu seulement xam ne mooy métier asiko bi. waaw ñun moom dañoo ñun ñëpp fii booy yi ngay gis si sigo bi yëpp am nañ seen métier. mais dañ ko jël teg ko fële concentré ci sigo bi ñëpp am nañ métier boo yëpp ñi ay tapissier lañ ñi ay tailleur soudeur lépp a ngi si asigo bi mais lépp lañ jël teg ko fee di xëy si sigo bi di si gond balaa ñuy tëdd sax dañuy déglu suñu asiko door a tëdd kon asiko bi rek la ñuy topp. topp moom la ñuy topp man ma leen di topp mu neex <laughs> alors euh, beneen dernière question avant ñu ñëw ci Blanc euh, liggéey boo gis am na. mais am na risque am na inconvénient am na yeneen ak yeneen ak yeneen euh, yan ñooy risque ci métier bi ngeen di def ndax yombul. Ah, yombul moom yombul moom defu ko ndax ay des fois da lay indil feebar yu metti des fois waaw yaram yu metti biir yu metti sa loxo yëpp day yàqu day koor ba yàqu kañ. ma foogoon ngeen am lu ci biir sa biir bi day metti bu baax kañ bu baax tëgg bi li ngay tëgg sa biir lay aw comme kees yi boo ko téye nii di dëgg. kii bi euh, lu si biir sa biir bi lay dal boo dooree nii sa biir lay contrer loolu yëpp day fay après sa yaram boo tëddee da ngay sentir sa yaram yëpp ay metti dinaa ñëwaat ci yow parce que euh, Laurent moo ngi taxaw blanc comme neige <laughs> moom nag tey il va nous dire un peu euh, instrument yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum asiko parce que asiko moom boo ko déggee rek da ngay daal di dégg li nga xam ne mooy ndënd li ma ci xam bariwul alors dañuy daal di ñëw si instrument yi parce que déjà bi ñu ñëwee gis nañ fii ay tama mais tama yi ba tey bokkuñu ma bëggoon nga wax ñu un peu euh, instrument yi. instrument yi moom daa bari moom. alors bii mooy cung. waaw bii cung la bii sa ginnaaw. Ah, ñu def ko par benn benn alors cung lan mooy liggéeyam exactement. cung bi mooy mooy def marimba bi. waaw lu neex loolu. waaw lu neex loolu ngay dégg. <laughs> alors bii mooy ban. bii mooy jéembe bi. jéembe waaw. mooy feccikatu jéembe bi la utiliser. jëmbe bi xam naa après dinañ ko ibbee alors ñu gisaat jële ne. même chose moom tamit. tamit. moom mooy defaat marimba bi tamit cungu waaw ok. neex bii mooy bugaraw bi. bii mooy ban. bugaraw. bugaraw waaw. bi mooy si tamit marimba joolaa yooyu noonu yow tam ngay dégg. bii tam moo koy Cissé dina kontaan. Ah. yéen instant dama réer. yéen ñuy tàng kees carré yi fe surtout yooyu. waaw yooyu nag moo am solo nag ci kër. qu'est-ce qui lu tax ngeen koy lakk feu bi lan la. xam dañ koy teg nga koy yàgg teg bu ñu ko tegee te génne ko si naaj bi der bi du taal tàlli. mu war ñu koy lakk balaa ñu ko jéem mu lay jox son bi nga bëgg. son bi nga bëgg. instrument bi nag dafa wute nag. Mm. bu nekk daa bu nekk ah. am basse am contour am tente. group yéen ngeen yor. waaw groupe la. lan la leen musiciens yi ëppale. mais ëpp ëppale ñu dara rek. yéen a ëpp doole ci aar bi. non ëpp ñu doole ñuy jàng rek. <laughs> ba pare li gën a garaaw. mooy instrument bu nekk dafa am bruit bu spéciale bi nga xam ne moom lay tëgg. alors merci beaucoup Blanc alors dinañ da dinañ dalal également euh, un chanteur bi nga xam ne moom daal mooy star bi c'est que man bëri na tiiteur <laughs> mën na woy mais tamit man dama koo bëgg ñoom ñëpp nag ay star lañ nee naa leen asikomaan yi dañuy ñëw asikomaan nañ leen di woole wala. asikomaan la ñuy considérer <laughs> maay tuddee ki am métier ku ne maa lay tuddee tur bu nekk donc moom tam dañ koy woo moom star la star bi kaay star bi ñëwal <laughs> wala ma ñëw fekk si la star yomb alors man dama ñëw rek sama caméraman moo la njëkk a xàmme waaw Papa sama waay la maa bu baax a baax mhm. di la nuyu yow mhm. di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Medina mhm. ñu daal di gis ne seen métier bi métier bu riche la bu am doole euh, parce que euh, woykat da ciy am te yéen ñëpp mën a woy sax nag mais woykat faar da ciy am tëgg kat da ciy am yow nga nekk woykat bi donc euh, woykat bi da ko judduwaale don la wala da nga ko jàng wala comment ça s'est ba nga doon chanter. bon woy bi moom daanaka lu lu ñu dab la rek xam nga te asiko bi nekkuloon loo xamante ne suñu bëgg-bëgg la woon tey asiko bi ñu si nekk ñëpp tey kii mi ngi woon ci liggéeyam. Kéba mi ngi woon ci liggéeyam keneen ak keneen mi ngi woon ci liggéeyam man tamit maa ngi woon ci sama liggéey te yàlla moo ñu boole tamit mu nekk ànd boo xamante ni daa yàgg ànd bi nekkul ànd boo xamante ni dañuy tricher su tricher amoon rek duñu yegg fii waaw looloo indi lii yëpp tey ñu nekkoon ci benn stade euh, suñu ASC di joué ñu nekkoon les les perturbateurs xam nga di yëngal stade bi di sotti ndox tuddee suñu bopp déranger loolu moo indi tey turu asiko bi nii nii yëpp. déranger lañ tuddoon nag di nekk stade bi di tooyal ndox xam nga di tooñ waaw waaw ñun la woon bilaay ndax man match yi rek laay topp ñoom rek laay seetaan yéen kon yéen a doom yore mbuusu ndox yi di def nii yee bilaay di si jégalu ñëpp nag barke yàlla xam nga ay ndaw lañu woon tamit xamuñu woon dara ah. lool loolu dafa neex yàlla boo sol mayu équipe nationale ah eh, ñu tooyal la yàlla bu bii dugg nga ànd tooyaay bi noonu ci bi mbégte mooy def loolu noonu yow la koy def sa doo ko tey Sénégal day dugal koo xamante ne xamoo ko so da nga koy ñëw accolade waaw te loolu dafa neex asiko bi day boole jaxasewul kenn. yee noonu la fa neex. damay insister ci loolu parce que gis nañ ne bi bi Sénégal ba ñu nekkee woon san champion d'Afrique nekkoon tuñ ko waaye Ivoirien dañ koo sàcc si ñun amul problème chaque jour ma wax leen ko bi ñu ko nekkee woon ñu xulloo ñëpp dañoo jubboo. ah mais yéen itam da ngeen di toj TikTok bi xale yi dañuy jël seen euh, seen i seen i mbir di ko challenge lu neex lu doy waar. donc voilà bu ñu jógee foofu euh, est-ce que tu as quelque chose à dire ci côté euh, sport bi. parce que am na ay vieux également yu fa nekk yoo xam ne ñoom ay asikoman lañ comme yéen donc tey pourtant lépp xale koy def micro xale koy yor caméraman xale koy def mais asikoman tamit xale koy tuddee naa leen asikoman ba tey day dem asikoman xale la léegi yéen paa yi nekk ci ci ci ci ci asiko tooñu ma leen de ngeen baal ma mais yéen ñi ngeen xam ne ay paa da cee nekk pourquoi yéen xale yi doo leen intégré euh, ci yooyu. yee asiko laa yàgg waaw depuis colonial la woon. suñu maam yi ñoo ko doon fooyee léegi xale yi nag ñoo si wuy te ñun tamit bañ ko jàppee ba léegi wane wuñ si loo xamante ni lu ñaax fayda la waaw fu ak fayda rek lañ ciy dox te tamit sànq comme li nga wax rek si réseau bi tamit lu xale yi bëgg rek la ñuy def cherché wuñu loo xamante ni tamit dañ koy def mais kenn ñu si déglu tey xale bii nii su ma woyee day aw ndax moom moom lu mu bëgg rek laay def ki booy ñoom tamit dañuy tëgg loo xamante ne xale yi bëgg nañ ko waaw na xale yi tamit day toog seen saalu yaay jël seen njëgënaay wala jël table di tëgg. yàq ngeen xale Medina yi <laughs> tamit euh, sur le sport tamit Sénégal tamit war na mën a am changement. Mhm. waaw si côté équipe nationale. waa douzième gaynde war na mën a am changement boo xamante ni tey relève bi bari na xale yi di si ko bëri tey mun nañ def benn sélection bu rëy ñu jël seppi Medina Colobane Fass banlieue bi xool ay booy talent yoo xamante ni ay nañ. konte nee nañ asiko bi du yàq day defar ñu boole ñu ñu dem tëggal équipe nationale wàccee paay suuri ah. ndax sonn nañ. da ngeen sonn nag paay ngeen baal ma ah douzième gaynde yi ba tey ñun yéen rek la ñuy topp foo leen dem ñu ànd faat yeen ah, bu Sénégal di football mais nag ñii il faut ngeen may leen parce que ñoom it euh, avant sax ñu war a may bi ou pas ñoom dañuy dañuy def fële la lépp di xewee mais fii il faut ñu def benn démonstration bu ndaw nga daal di woy lu ndaw ñu xool ndax war nañ leen mën a may ou pas. loolu force la. barke yàlla. donc papa dañuy daal di def démonstration bu ndaw euh, moom mu daal di woy. kelema wele sina yow géy na woy naa la soo demee dinañ waaru asiko sama doole asiko sama doole yow owe asikoloy xalaay mu mooy sama doomi yaay waa asiko soy dem yóbbu ma ay waay waay waali njaay looy xalaat yow Waly Ndiaye looy xalaat hey Waly looy xalaat yow yaay sama doomi yaay Waly Ndiaye soo dem yow bu ma. Waly Ndiaye de du ma fi ba fu mu noonu du ma fi ba. <laughs> waaye Waly Ndiaye ba nga ko yëkkatee xam nga lu ñuy naan chair de pour sama yaram baa daw daal. sentir nga ko neex nga fi wéy. Ah, waaw bu ñu demee fee ko nu demee. daa day yëngu rek. <laughs> Ah, daal di euh, euh, euh, dégg ne. bokk nga si ñi bokk ngeen sax ndax groupe la équipe la ah, bokk ngeen si ñu njëkk feesal Sorano teg ci grand théâtre te loolu musicien yu mag yi sax ñemewuñ ko surtout grand théâtre yee la xam nga commencement métti woon nag trop kenn xamuñu woon ñuy demee suñu doole bopp tey ba yàlla yegg si yàlla yóbbuñu fii nii commencement bi ñu commencé suñu premier concert sur u bi dafa ko gratuit mu fees dell ñu dafa jeex rek ñu toog ñe pourquoi pas mënuñu def Sorano ñu dem xool foofu noonu gars yi wan ñu renseignement yëpp ñu déposé kayit yi génn ñu song ko mu fees dell nag billaay ñëpp apprécier nee ñu nii la jàppaleen rek dina baax ñu dellu baa mois d' mois d' xam nga kenn du sañ a jël programme. mooy miroir de taw. waaw day taw ñu jël ko duy ko ba mu fees jóge ci loolu dem Grand Théâtre. déedéet ñaata la te commencement bi sax borom directeur Grand Théâtre daf bañoon. da waaw dafa ne asiko li mënul ne asiko warul mën a ñëw Grand Théâtre ñun suñu doole bopp ñu xam nañu suñu suñu tànk ci biir Grand Théâtre rek mooy fees na léegi. par la suite moom directeur bi wàcc fekk doomam di ñu seetaan ñun si TikTok bi mu woote waat ñoo ne damay may damay jox booy saal bi tamit ñun tamit ñu ne ko doo ñu gën a gore tey dinañ xar suñu tàng tubéy dinañ def lépp loo xamante ni Grand Théâtre dina fees dinañ ko def defuñu ticket 2000 defuñu ticket 3000 5000. 5000 mel ni 20000 lañ. 10 000 famille. wallaahi. fees dell. mayuñu si kenn ticket. billaahi wallaahi. célébrité yi. demuñu si benn nit ne ko dañ lay may kaay kaay nga seetaan jaay nañ lu bari nit ñee ñëw jël seen xaalis jënd billet ñëw toog seetaan mu fees dell ba tey ñoom sax ñu ngi bëggaat ñu ñëwaat. boo leen di tëggaat damay dem papa day ñëw nee naa leen asikoo xale ma daal di gis kee doom tëgg ñëwal nee ne tuuti kaay <laughs> ma gis da nga nekk ci ci ci bële moo tudd nan noo tudd sax déjà nga présenté wu d'abord bon salaamaaleykum man. jàkkaarloo sama caméraman. bon Djibril Sow laa tudd mais Djibi Siko lañ ma gën a xamee. bon instrument noonu. <laughs> d' accord bon Bokarabu laa joué mhm. genre instrument brésilien la ñu gën ko xam si Tumba. waaw comme les pros moom la ñuy wax. Mhm. comme ñoom Waly Seck ak ñëpp dañ koy joué mais ñoom Tumba lañ ko tuddee mais bu dee si cadre Asuko on l' appelle Bokarabu. alors kon yéen jot na ngeen ngeen ngeen ngeen bokk ci aar bi bu ñu nee mbalax ne asikomaan. non loolu ñun ñu ngi ci tànk yi personnellement. parce que dañ fa am foo xam ne dañ fa fekkoon asiko il y des années de cela malgré que dañu juddu fekk ko fi instant bi boo xoolee asiko mi ngi jël beneen ampleur boo xamante ne jëlu ko woon malgré que du dañu gën a aay suñu papa yi wala dara mais léegi asiko day dem ak piano asiko day dem ak euh, batterie asiko day indi guitare. lépp luy matériel boo xamante ne dañ koy teg si kaw seen orchestre mhm. Asiko daf koy def comprendre nga te c'est une musique comme les autres muy le rap le mbalax yeneen i zouk yëpp c'est c'est des formes de musique différentes mhm. te bi on l'appelle précisément la musique du cœur parce que mooy la seule musique bi nga xamante ne exactement nga xam ko ñàkk ko xam da ngay kontaan uh-huh. peu importe nga xam parole yi ñàkk ko mën lu ñuy wax ak boo ko déggul sax da ngay kontaan loolu mooy Asiko Baye Waly Ndiaye ba nga ko woowee man sax damaa bëggoon demaale booy dem doo fi baay ñu dégg ne euh, dama dégg si euh, ñenn ñi ñu ne carrément booleel buy jigéen di tëgg euh, tam-tam yi nii nu mu tudd instrument yi asiko yi dafay am complication am na ñenn ñi nga xam ne naan doo sëyi ñi naan doo am doom ñi naan baaxul ci jigéen ñi naan patiti patata est-ce que loolu c'est am na si yoo xamante ne bon mag ñi buñ ko daan wax parce que mag ñi dañ daan lépp mais dañ doon yaraale en même temps mi ngi mel ni ñu ne la booy bale di faxas muy génn ci néeg sa wërsëg day dem te yow xam nga ne wërsëg ala kulli àll da nga siy jot même boo nekkee sa bàmbeel da nga siy jot c'était juste parce que autant y avait pas la lumière booy bale di faxas lép loo xam ne faxas nga ko bu ëllëgee boo koy seet doo ko gis noonu lañ doon naxee xale yi si asiko tamit boo déggee ñu koy wax jigéen naan ko doo sëy c'est parce que dafa nekk un jeu de garçon mi ngi mel ni jigéen bi fubal da ngay dem ba la fin da ngay yor forme góor góor ñi sax dañ lay daw loolu moo tax ñu ko doon tere jigéen ñi di leen ko naxee naa leen tëgg baaxul si jigéen mais tëggantu tamit baaxul parce que pour un artiste professionnel nga ñëw fenn war a jouer li nga war a jouer si kaw nga taxaw si suuf avant nga yëg si kaw seen nga jouer ko fa tëggantu baaxul parce que day tax boo yéegee si kaw li ngay def dootul saf dara joxe nga en avant goût avant ngay yëg si kaw te beneen bi aussi mooy que tëggantu day wàññi lu bëri ci nit comme genre sa coono da siy dem da ngay sonn. boo waroon nekk à 100 pour cent tu seras à 70 wala à pour cent moo tax yooyu yëpp ay raison la yu war a tax ñu koy tere. dégg naa dëgg nekkete maam yi yàgg nañoo lépp nag ñu ñu ñu ñu moom ba foog ne dëgg la surtout man donc euh, neex na waxtaan bi neex na de waaye am na wala olof Ndiaye ah. sonal <laughs> mooy kan sax. xam kenn xamu ko. <laughs> nee naa leen waxtaan bi neex na mais ci biir a ko dàq ndax ñoom tey lañu ñu yëngal fii ba mu waa Medina. waa 7TV Wakaam waa Yoof ñëpp a fiy daje donc dañuy ànd ak complicité papa sama doom sama caméraman ñu daal di dem yëngal man nee naa leen tey damay fecc de. dañuy yëngal fi xew nag mais damay waaw ñun ñu li li ñu njëkk a ñu ngi koy may papa. papa ngeen koy may sonn na ci caméra. <laughs> courage na tànk yi bay gaañ papa bu baaxee ñu dem. àníwá méjì náà. a ngi nii toj jafe li nga mujjee woy yow man ci toog laa koy déggee. waaw loolu amoo sile ñoom sa boor ba xam nga ay lébu sa boor ba amoo sile loolu ku ya ku yàgg dem géej rek moo xam. waaw loolu nga ñëw ambiance ko fii. waaw di leen may délicace rek. xam nga waaw ñun kontaan nañu. xam nga ne sama mariage yaa koy tëj. non incha xaar. <laughs> alors euh, mi ngi noonu tey ñu daal di dalaloon asikomaan yi donc bu ñu nee asikomaan lii la. gis ngeen présenté nañ leen li ngeen xam ne euh, mooy euh, instrument yi nga xam ne moo koy accompagner présenté leen quelques ci artistes yi parce que Asikoman yi ñoom groupe la Asikoman yi euh, équipe la famille la ba mu doon Asiko family donc ba tax na c'était un plaisir ah kontaan nañu lool xam naa ne ñoom lu ñu mënaat waxaat damay bàyyi rek nga waxal leen tàggul leen ñu tàggoo téléspectateur neex na lu neex lu doy. waaw au nom de tous les tous les ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm waaw suñu wax suñu limee dañuy juum mu ngi nuyu si nekk mu ngi nuyu yaayam ku si nuyu papam mu ngi nuyu sa famille waaw message boobu daal maa koy jaalale ñëpp waaw. en tout cas plaisir comme ni ngeen koy ni ngeen koy gisee euh, chaque mercredi à. 13h30 góorgóorlu day ñëw ci beneen corps de métier tey ñu daal ñëw ci asikoman mu nekk euh, métier man maa leen tuddee asikoman de waaye asiko famille lañ tudd man maa ko yokk man rek <laughs> mi ngi no wa asiko famille ay jigéen yuy def asiko. si am nañ ay jigéen yoo xam dañuy ñëw waaw ñii dañuy jàpp ci aaw bi des fois ñii dañuy jàpp ambiance bi. tax ñëwuñu wala bëree tax. waaw mbër mbër la yëpp. juddoo ba tey maa ngi doog a ñëw si genre affaire yi. waaw ah, mais noonu la day tax nga gën a xam àdduna. kontaan naa de neex na. waaw ah, fii la bee. merci beaucoup Bakhaw. bu baax ñu ngi lay bëggee bu baax a baax. Euh, asiko famille toj na fi comme ni ma leen ko waxee ci njëlbeen ba nee naa leen tout à l'heure euh, ci biti dafay neex mais fii mooy dàkk j'espère que vous avez aimé l'émission euh, voilà di leen présenter asiko famille ñoom nag groupe la comme li ngeen ko déggee ni ñuy waxee ku nekk la amoon sa métier. nekk da nga nekkoon ci leneen mais dañoo bàyyi lépp ñëw ci li nga xam ne ah, mooy métier asikomaan dégg ngeen tëggee ba tey day neex góorgóorlu nii lay demee saa su ne di remercier bu baax a baax ah, sama caméraman di papa sama doom sama xarit moom moo moom laa àndaloon ci ah, li nga xam ne mooy caméra bi voilà moom accompagne image bu rafet rek moo ko génnee waaye kenn du góora góora sama doom tey ngay monté ba dee ndax liñ fi jël lépp a neex doo bëgg a sànni dara ci mbalit bi jëleen leen jaajëfal di jaajëfal également ñëpp ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy seetaan góorgóorlu di ñu bëggee à travers le monde entier di leen jaajëfal yéen mais aussi Keyna la Star Store euh, ngeen contacté ko dafay jaay li nga xam ne mooy euh, buy ah jus de buy lépp loo xam ne buy la bio diwu yaram lépp euh, savon lépp mais pas luy xeesal mais loo xam ne peau naturelle la day réparer peau euh, donc ak li nga xam ne mooy friperie bi lép lu ma sol rek maa koy jaay maa ko jaay sama bopp maa ko solal sama bopp mun ngeen ñu contacter sur le 78 480 25 78 480 25 25 di leen jaajëfal di leen jox di daje incha allah ba mercredi prochain waaw.